ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ngi yeesal santaar suñu boroom subhanahu wa taala mi ñuy wërsëgal ñuy dund ci biir chahru ramadan di ñuy wërsëgalit ñu daje ci ab néegam di fas yéene jàng la nga xam ne muy ab téeréem di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko gannaaw ba it ñi nga xam ne ñoom la mbir yi di yegg ca ñoom ak ña nga xam ne ñooy dox suñu diggante ak ñoom yépp di leen ko jottali ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala boole ngërëmam ñu ngi nekkoon ci suratul maida di saar woo xam ne nii mooy saar yi mujj a wàcc di leeral yi dagan ak yi xaram suñu boroom woo ñu ci ay woo te yoo xam ne woowu ñu ko ci benn saar bu dul moom ci yaa ayuha allazina amanu mi ngi noonu ñu ngi demoon tey war a dal juróom ñaareelu aaya bi ci saar woowee fi suñu boroom di waxee ne waskuru nicmatallahi alaykum mi ngi noonu incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Aline mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom subhanahu wa ta'ala mu ne e yéen julit ñi wazkuru nicmatallahi alaykum fàttaliku leen xéewalu yàlla ci yéen wa misaaqahu alladi waasaqakum bi ak it kóllëre ga nga xam ne kóllëre ne te kóllëre gum doxale woon seen diggante ak moom gam fa fasante woon ak yéen id qultum samicna wa atacna bi ngeen di wax ñun day dégg nañu ca topp nañu wattaqullah ragal leen yàlla inna allaha alimun bi daati sudur yàlla day xam na li nekk ci biir dënn yi yaa ayuha allazina amanu ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm kunu qawaamina lillah doon leen aji taxaw temm ñeel yàlla shuhadaa bil qist doon ñuy seede cig maandute wala yajrimannakum shana'aanu qawm bum leen yóbbu mukk mere gu ngeen mere aw xeet bañ gu ngeen bañ aw xeet ala alla taadilu bum leen yóbbu mukk ci ngeen di bañ a maandu iadilu huwa aqrabu li taqwa maandu leen maandu day moo gën a jege ragal yàlla wattaqullah ngalla way ragal leen ni yàlla inna allaha xabirun bima taamaluun yàlla ku ñàkk kumpa la ci li ngeen di jëf waada allahu lazina amanu wa amilu salihat yàlla de mi ngi dig ñi nga xam ne dañoo gëm cay def lu baax lahum magfiratun wa ajrun azim dana leen ñeel la nga xamee ne mooy njëggal ak la nga xam ni mooy fay gu màgg mi ngi noonu mbokk suñu boroom bi ñu mujjee dal démb mi ngi ñu doon wax xéewal gim ñu defal ci farataal ci ñun cangaay farataal ci ñun njàpp ngir ñu mën a taxaw jëm ci julli mu ni mottali na xéewalam ci ñun ngir ñu sant ko mu ne it tey fàttaliku leen xéewalu yàlla ci yéen ca mbokk jullit war nay toog di xool xéewal yi ko yàlla defal malheureusement li ëpp ci nit ñi nattu yi leen yàlla teg rek lañuy lim moom la ñuy bàyyi xel ku ñu dajal tuur ko ko waaye fekk ne yaa ngi ay xéewal yoo xam ne moom mënoo koo lim in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha doonte ne xéewal yooyu yépp bu daje woon nañ xam ne la ca gën a rëy mooy liñ waxoonte woon ak yéen démb mooy la nga xam ne mooy xéewalug lislaam ñu ngi noonu suñu borom subhanahu wa taala mu ne واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها fàttaliku leen xéewal yi gën a rëy mooy yéen jullit bi leen yàlla defee ngeen doon benn ngeen daje ci lislaam chinois bi noir bi ki am ki ñàkk gannaaw ba yéen a ngi nekkoon ci paxu tabbi sawara suñu borom musala leen ci ci lislaam loolu mooy xiiwal gi gën a rëy gu doomu aadama di war a bàyyi xel looloo tax ba yow jullit fépp foo mën a nekk bàyyil xel ne avant tout man jullit la ma yow le militaire Muhammad ngalawaay armée am na ay réglam mais nag xa fàttalikul ci kanamu réglement armée yépp ne man kat sama xéewal gi gën a rëy du juste militaire mais man julit la ko defee nga jiital lay xéewalug yàlla googe mu def ci yow ci leneen commerçant bi nekk ci buntu riba liggéeykat bi nekk ci buntu lu mën a doon lépp loo xam ne yaa ngi ci dugg ko génn ci àdduna ngalawaay fàttalikul xéewalug yàlla googe mu la defal bu ko jënde leneen lu dul loolu te bu doon loolu nga koy jënd day àdduna ak li ci biirum sax perte nga mi ngi noonu borom bi nag ne fàttaliku leen bi may jàpp ak yéen kóllëre bi ngeen di wax dégg nañu topp nañu kóllëre googee am na lu ca jiitu suñu juddu suñu borom génne woon nañu ñun ñëpp ca suñu ndigg bàyyi aadama ndax duma seen borom seedalooñu ñun ñëpp ñu seede na ko na am na am loolu ñun fàtte nañ ko waaye bu ko yàlla waxee rek am na amul kenn ci ñun ko fàttali ko jamono bi muy juddu jamono bi ngay nekk sa biiru yaay loolu lépp fàtte nga ko waaye wóor na la ne am na borom boobu it gannaaw ba jullit bi taxaw ci ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah loolu la muy firi mooy jël na engagement yàlla daañ dégg say wax daañ jëfe say ndigal moo tax suñu borom ne wal mu'minina kullun amanna billahi wa ila axiri wa qaalu sami'na wa ata'na loolu mooy xaalu julit mooy pare ngir dégg ca jëfe borom bi nag mu ne ragal leen yàlla kon ci jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem ca mbokk différence entre naafiq ak jullit bu wér mooy jullit ak naafiq ñoo bokk ay wax waaye fañ wuute mooy buñ jógee bay jëf jullit ya wér yi rek ñooy jëf la yàlla jëflu moo tax borom bi ne wattaqullah xam leen ne nag yàlla xam na nekk ci biir dënn yi ca loolu it mbokk mi wane ragal yàlla ci dënn lay nekk rasul sallallahu alayhi wasallam daana wax attaqwa haahuna attaqwa haahuna ragal yàlla ci dënn lay nekk ay ci biir xol loolu it muy wane ne doomu aadama yi mënuñu attente ndax kenn xamul lu nekk ci biir xolu moroom yàlla rek mooy kii atte dafa fekk nag ne xol bi bu jubee xol bi bu sellee fokk muy feeñ ci jëf yi ak wax yi xol bi bu lëndëmee jengee fokk muy feeñ ci jëf yi ak wax yi suñu borom mu ne yéeféer yi qad badat albaghdaau min afwahihim wa ma tukinnu suduruhum akbar la ñu feeñal ci seen làmmiñ yi day la nekk ci dënn yi moo ko ëpp mi ngi noonu kon jullit war naa góorgóorlu rafetal li nekk ci dënnam te loolu it bokk na lu ci gën a màgg al ixlaas lépp looy def def ko ca yàlla subhanahu wa taala tax nga ragal yàlla wéetal yàlla jalla wa ala suñu borom woowaat ñu ci beneen woote woote boobu mooy lan ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm su boobaa nekk leen ñoo xam ne aji ñuy taxaw lañuy doon qawaamin taxaw képp ci ndigalu yàlla doon ñu engagé wu ci ndigalu yàlla doon ñoo xam ne fu ñu toll du ñu seede lu dul dëgg dëgg googee day dal ci seen kaw wala seen wayjur wala kum mën a doon nañ ko jànge woon barki démb suñu borom mu ne fallahu awla bihima na ngeen seede doon ñuy taxaw ci dëgg ca bañ gu ngeen bañ aw xeet bu mu tee mukk ngeen maandu ci seen diggante heure booy wax waxal dëgg heure boo xamee ne nii itamit da nga doon koo xamee ne nii da ngay atte ngalawaay na nga doon ñoo xam ne dañuy atte ci dëgg ca mbokk lii rek mooy la nga xam ne mooy maandu teeg lislaam gis nañu la nga xamee ne nii ca jamonoy sahaaba ya ci jamono maawiya mas na am benn pacte bu ñu siñenteeg lenn ci waa ruum yi ci ne dañuy bàyyi xeex bi masalan lu tolloog juróom benn weer comme ni mu amee léegi bi ñu siñeentee pacte bi ba ñu demee ba mbir mi des ñetti fan armée islamique bi ñu jox leen ordre ñu jóg déplacé wu ba ci frontière waa Ruum yi ngiree bu délai bi jeexee rek dañuy jóg dal seen kaw loolee ba nga xamee ni nii ma ngi saxaaba yi yëg nañ ko dañoo ñëw ci Maawiya ndax ñoo ngi gis day loo xam ne nii daganul ndax bu dee nañu dañoo siñanteeg ñoom masalal ñu ni fii ba weeru tamxarit bi di jeex duñu xeex loolu ñun ci biir weeru tamxarit ñu déplacé suñu armée jëm ci ñoom bokk na ci xeex déplacé armée kon loolu ak war la loolu ca la maa yi joxe ordre armée islamique ne delluwaat fu ñu jóge woon te ñi mbokk ay yéeféer lañu ay noonu lislaam lañu waaye suñu borom subhanahu wa taala ni lu ngeen noonoo noonoo ay nit ngalawaay bu mu tee mukk ngeen doon ñoo xam ne dañuy maandu seen diggante borom bi subhanahu wa taala ni maandu leen looloo gën a jege ragal yàlla i'dilu maandu leen moo gën a jege ragal yàlla suñu borom mu ne day digle ci maandu te inna allah yaamuru bil adl adl boobu mbokk da ngay gis ne la ca nekk mooy lépp loo xam ne yaa nga cay atte wala yaa ngi koy jiite nga maandu ca yow mi nekk sa biir kër maandul sa diggante ak say soxna maandul sa diggante ak say njaboot yonent bi alei salaam daana wax naan ittaqullaha waadilu bayna awlaadikum ragal leen yàlla ca maandu diggante doom yi bu ñu dem mukk ba yenn doom jóg ne ñun kat sunu baay faale wuñu ñee rek la faale loolu ëpp naa def bokk julit yow mi dem nag ba ca tribunal ba gën a mag ngal la way boo demee bay àtte it maandu leen yemaleel jaami yàlla yépp sa kanam suñ borom baa mu wat ne wattaqullah ragal leen yàlla ca loolu mooy maandu tey maandu te mooy ragal yàlla ba lépp looy jëflanteeg jaamu yàlla yi nga xool naka yàlla gërëma nga defe ko noonu loolu rek mooy maandu tey wala tax tey jii waa ji ñëwoon ñu am ay preuve leen dafa sàcc maandu te ba mooy nañ dagalo xoom dafa am ay preuve leer na daa njaaloo ca mas na sëy maandu te ba mooy nañ ko rey ala kulli xaal nañ ragal yàlla ci jaam yi loolu mooy maandute borom bi nag ne li ngeen di def lépp amul lenn loo xam ne nii réer na ma ca julitit mbokk loolu mooy grade bi gën a kawe booy am ci diini lislaam mooy nga yëg ne sa borom yàlla dara réeru ko du doon ci li ngay def wala li ngay wax wala li nekk sa biir dënn te loolu mooy grade ihsaan borom boobu nag ne mi ngi dikk moom mi nga xam ne fekk na lépp yëg na lépp nee na mi ngi dikk ñi nga xam ne gëm nañu ah seen borom jëfe nañ ay ndigalam ne ñooñu day dana leen jéggal te dana leen jagleel yool boo xam ne yool bu màgg la mbokk lii lum ñuy firi mooy suñu borom bu ne mooy alxabir rek kersa dana la dal amul kenn ci ñun lu dul yëg ne ne ne am na gàttañ lu gum am digganteem ak boromam am na bakkaar boo xam ne nit mënu ci mucc waaye suñ borom mu ne su ngeen ragalee yàlla dinaa leen baal seeni bakkaar di leen waajal yool boo xam ne yool bu màgg la ca mbokk yool boobu du dara lu dul aljanna yàlla na yàlla def ko muy suñu wàccuwaay bismillah
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل فقد ضل سواء السبيل barakallahu fiik kon suñu borom mu ne wallazina kafaru wa ka- kazzabu bi ayatina ñi nga xam ne day dañoo weddi seen borom ba pare ne aaya yàlla ya dara lu ci dëgg weddi ko fenloo ko ulaika ashaabul jahim ñooñu day ñooy ñooñuy sawaras jahim يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm fàttaliku leen xéewalu yàlla ci yéen id hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum bi muy mébét aw xeet di tàllal ci yéen jëme ci yéen seen loxo ay di dal seen kaw fa kaffa aydiyahum ankum mu daal di fekk seeni loxo ci yéen ba yegg si wuñu wattaqullah ragal leen yàlla wa ala allahi falyatawakkalil muminuun ca ci yàlla rek lay war a wékku képp koo xam ne da nga gëm wa laqad axada allahu mithaqa bani israil suñu borom de mu ne sikk amul ci ne jàppoon ne kull rek bani israil wa baasna minhum isnay achara naqiba ñu daal di génne ci ñoom fukk ak ñaar ci ay tànneef ñu seen kilifa ya wa qaala allahu inni maakum suñu borom mu ne maa ngi ànd ak yéen la in aqamtumu salaata wa aataytumu zaka fii yéeg yéen a ngi taxawal julli di joxe azaka wa amantum bi rusuli di gëm la nga xam ne mooy sama yonent wa azartumuhum ngeen leen di yit di màggal di leen dimbali wa aqrabtum allaha qardan xasana gannaaw ba ngeen lebal yàlla bor bu rafet la ukaffiranna ankum sayiaatikum danaa farñeel leen seeni ñaawteef wala udxilannakum jannatin danaa leen dugalit àjjana yoo xam ne tajri min taxtiha al anhaar dana daw ca suufam ay dex fa man kafara bada zalik ku weddi gannaaw lii day minkum ci yéen faqad dalla sawa alsabil kookee day réere na la gën a digg doomu ci aw yoon mbokkoo adduna ngi nii ñu nekk ñaari mbooloo ak li ñuy bari bari ci kaw suuf ñaari mbooloo dong lañu mbooloo bi gëm borom bi subhanahu wa taala jëfe ay ndigalam suñu borom mu ne ñii day maa ngi leen di waajal ajjana muy pay gu rëy yal na yàlla boole ñu ci ñoom beneen mbooloo mi ak nuñ mën a tudd nag maadaama weddi nañu seen borom yàlla weddi nañu aaya yi yàlla wàcc ci alquran suñu borom nee na ñii ñoom ñooy ñooñi sawara loolu kon mooy ñaari yoon yi nga xam ne ñii ñi ngi jaar fii ñii jaar fay borom bi nag delluwaat woo ña nga xam ne ñoom dañoo gëm ca nar a jëm àllaaxira ca nar a jëm ca ajjana mu ne ay yéen ñi gëm fàttaliku leen xéewalu yàlla ci yéen mi ngi noonu ca jàngal nañ ko sànq mu wax ñu ko mu feddili wat loolu waaye xéewal gi muy wax fii mooy kañ bi nga xamee ni nii am na ay nit ñu ñëw bëggoon a tàllal seen loxo ci kaw jullit ñi faagaagal lislaam ca loolee mbokk gis nañu ne am na ay yoon bokk na ci loolu liñ doon leen nettali ci tafsir yi passé ñi nga xam ne mooy ñi waroon yonent bi alayhi salaam ci kattan di waa Makka ak ñu ñuy tudde yahud yi nekkoon Xaybar ak yeneen jiiri arab mas nañu lënkaloo ñoom ñëpp ñu tudde leen ahzab muy mbooloo ya daje woon parti ya daje woon moo tax ngay jàng suratul ahzab seen jubluwaay moo doon faagaagal lislaam ci kaw suuf suñu borom bi mu ne fa arsalna alayhim riixan wa junuudan lam taruha yàlla sànni ci ñoom ngelaw wàcce armée malaakaam ñu yëngal seen xol dàq leen loole am na gis nañu it keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di suñeenteeg pacte waa Makka am na benn détachement ay fas lu jege juróom fukki nit ñoo xam ne ñi ngi jege woon Makka pour def commando rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal ko yonent bi sahaba yi piège leen jàpp leen gannaaw ba yonent ba baal leen loolu ngay jàng suratul fath huwa allazi kaffa aydiya annaas ankum wa aydiyakum ankum bi batni makka li ngi noonu loolee kon am na yeneen ak yeneen yàlla moo ko fekk bu dee même ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn bis mu nekk ci benn xare benn ci yéeféer bu ñu wax xooyris di yoot di yoot ba yëgsi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne xamuloon kumpa rocc jaasi yonent bi fekk saxaaba yi bu ñu masaan nekk ci désert bi bay campé dañuy xool benn garab ñu jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa ji yoot ba yëgsi rocc jaaseem tiim yonent bi alayhi salaam yonent bi xippi mu ne ko waa Muhammad tey kan moo lay xettali ci man yonent bi alayhi salaam ne ko Allah waa ji tiit ba jaas ji wadd yonent bi këf jaas ji ne ko am sëñ bi ku lay xettali ci man mu ne ko sax sax mbaax rek yaa ngi dégg mi ngi noonu kon mbokk mi ngi noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala àdduna yépp buñ daje woon jëm ci yow su ko neexee fekk leen dara lañ la mën a lut amul kenn ko mën a teg ci yow lor illa bi iznillah moo tax mun nañu bu leen ragal buur bu leen ragal baadoola waaye wattaqullah bu ngeen di ragal ragal leen yàlla kese ndax moom dong yor seen njëriñ ak seen lor borom bi it ne ci yàlla rek la jullit di wékku looloo tax mi ngi noonu ngal la waay sa yaakaar ci la nga bëgg wékkul ci yàlla sa yaakaar ci li ngay ragal wékkul ci yàlla ndax jullit du doyloo ko dul yàlla ba nga xam ne ni bu la yàlla nattoo woon ay béjjën ay pettaaw ay biteel ay yépp yoo jàppoon ne lii mën na laa jëriñ ngalawaay demal dajal yépp a gas suul daa dina yàlla yaa ma bindoon yaa ma sàmmoon sama biiru yaay ci yow lay dellu yàlla wékku naa ci yow doyloo naa la wallahi mbokk da ngay tranquille da ngay tranquille féex yi nga noonu benn góor a ngi toog ak ñun fii ci jàkka ji yal na yàlla dolli ñu yiw dolli ko ko nee na ma ba ma ñàkkee xam am naa ndomba gu ma daan takk su ma masaan xëy ba dem service ba fàtte ko sax damay paas ñëw takk ko doog a delloo yaa ngi dégg xoolal coono boobu ndomb ak tul ndomb ak cat ndomb ak nangam doo xam ne nii takk takk takk takk suufu ron lal nga pettaaw yi béjjén yi mbokk xam nga loolu lu ko gën a yomba bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah mi ngi noonu nga daal di fiix tranquille dénk sa bopp yàlla dénk sa njaboot yàlla dénk sa alal yàlla mi ngi noonu dayloo yàlla jalla wa ala wa ala allahi falyatawakkalil mu'minun borom bi subhanahu wa taala nag ne ñii di bani israil yahud yi bon yi sonal la yow yeneen ci yàlla bi ngal la waay xamal ne du yow lañ jëkko war waaye suñu borom yàlla subhanahu wa taala gis nañu ne waxoon na ne jàpp na seen kóllëre génni ci ñoom lii di fukki tànneef ak ñaar nga xam ngeen bani israil mooy doomi yonent yàlla yanquuba yàlla dafa mayoon yonent yàlla yanquub mu am fukki doom ak ñaar yuusufa ca la bokkoon ñooñu biñ ñëwee Égypte di fa jurante di fa jurante ñooñu ñooy bani Israil ñoom ñépp ñoo bokk ay maam seen maam ñoo bokk benn bàyyi muy Israil naam léegi moo tax bi yàlla yónnee yonent yàlla Muusa te diggante Muusa ak ñoom bi ñëw Égypte diir bu sori dox na fa demoon nañ bari lool Muusa jël ci famille bu nekk ka nga xam ne mooy kilifa famille bi ñuy fukk ak ñaar suñu boroom jàppanteeg ñoom kóllëre ci ne ay yéen bani Israil maa ngi ànd ak yéen di leen dimbali ci seeni noon te xam ngeen jamono Muusa alayhi salaam ca la yàlla doog a faratal jihad fi sabilillah avant Muusa jihad amul woon yéeféer bu daan sonal kaw suuf yàlla day ñëw alak ko rek mu jeex qawmu nuux huut saalix luut ila axiri ci Muusa lañ commencé jihaad suñu borom nag ne leen fii ak yéen a ngi taxawal julli di génne azaka gëm samay yonent jàppale leen dimbali leen alal ji ngeen am ngeen lebal ci yàlla bor bu baax su boobaa de xam leen ne maa ngi ànd ak yéen moo gaa yi ki ànd ak yàlla ndax dana am ku koy mënal dara ki ànd ak yàlla ndax dana am lu mu jéem mu te ko ki ànd ak yàlla ndax am na lu mu ñàkk mi ngi noonu loolu la leen borom bi nag wax su ngeen bëggee ma ànd ak yéen def leen di loolu it moo tax ba tey li borom xam-xami diine yi wax mbokku lislaam tey amul kaddu ci kaw suuf kaddu gi Amérique moo ko yoroog ay suqam mais lan moo waral loolu mooy julit ñi day ñoom ñoo deful seen warugar ak seen borom waaye suñu borom day mi ngi nekkoon di ànd ak ñun ba doon te ne ni julit ñi ak seeni njiit gëmoon nañ yàlla nañ ko war a gëmi taxawal julli génne zakat la shakk ne yàlla dana ànd ak ñoom waaye bu dee ne la ëpp ci ñay woote woo lislaam tey képp koo xam ne sa yaakaar keneen ku dul yàlla nga yaakaar ña ngay wër bàmmeel ya ña ngay rendil xamb ya na ngay def nangam loolee mbokk day tax ba yàlla subhanahu wa taala du ànd ak ñun borom boobu nag subhanahu wa taala ne bani israil su ngeen defee lii danaa leen baal seeni bakkaar dugal leen àjjana yoo xam ne dana daw ci suufam ay dex amma ki weddi ci yéen na xam ne réere na gën jaa njub ci yoon te ngallaawaay mbokk jullit xamal ne benn yoon moo la mën a musal adduna moo la mën a musal alaxira mooy nga gëm sa boroom taxawal julli di génne zaka di topp yàlla ak yonent yàlla ñii di bani Israil baram mi nee na naam kon foofu la ñu yemoon Cheikh Ali mën nañu yeggale incha allah.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين barakallahu fiik suñu borom mu ne fa bima naqdihim misaaqahum ci firi ga nga xam ne firi nañ ko kóllëre ga yàlla jàppante woon ak ñoom la'annaahum ca laa leen rëbbe wa ja'alnaa quluubahum xaasiya def seen xol ya muy xol yu dëgër xol yu wow yuxarrifuuna alkalima an mawaadi'ihi ñuy dañuy jàngal kàddug yàlla ga ca place ba mu waroon a tege wa nasu xazan mimma zikiru bi fàtte benn cër ca la nga xam ne dañ leen koo waare woon wala tazaalu tattali'u ala xaa'inatin minhum doo deñ mukk nag di gis muy feeñ ci yow ci ak wor goo xam ne day nekk ci yahud yooyee illa qalilan minhum lu dul lu néew ca ñoom faafu anhum wasfax na nga doon ku leen di jéggal cay jéllale inna allaha yuhibbu almuhsinin yàlla day bëgg ñiy rafetal mbokkoo ñii nga xam ne ñooy yahud yi suñu borom nee na bi mu jàppanteeg ñoom kóllëre dañoo fecci kóllëre gi yàlla ga yàlla sant na leen gëm leen ma ña ngi koy bokkaale taxawal leen julli taxawaluñu julli joxe leen zakka joxewuñu zakka suñu borom mu ne noonu laa leen rëbbe ku yàlla rëbb mooy ku yàlla dàq ci yërmandeem wëlbati seen xole mu def ko xol yu dëgër ba ngëm dootu ca mën a dugg ca loolu mooy natt bi gën a rëy bu yàlla di def ab jaam mooy mu dëgëral xolam tëj xolam looloo tax keroog yonent yàlla Muusa ba muy ñaan yàlla alak firawna daf na yàlla nanga ma tëyal xolam bu mu gëm lu dul daa gis mbugal bu tar loolu nag mooy xol yi wow yooyee ba suñ demoonee tey mbokk yahut li ñuy def ci kaw suuf amul kenn ku koy def ku dul ñoom wallahi jamono yi ñuy wax rek suñu mbokk palestiniens yi ñu ngi leen di rey reyin yoo xam ne jéggi na dayoo ca loolu ñoom du question ay jamonoy guerre wala leneen mais pas-pas la bu ñu gëm am nañ benn téere bu ñuy wax ñoom Talmud téere ba boo demee liñ ci gëm mooy yow yahuud fexeel ba indi li ñuy tuddee grand Israël boobu mooy dawla boobu nga xam ne sionisme bi moom la ñuy bëgg a saxal di ëmb Irak dem ba biir Arabie saoudite waxumaa rek ay Palestine ak la ko wër loole ñoom dañu naan la ci boo demee ci seen téere yi dañ koy jàngal seen doom yi ca l'école ba war ngaa xeex ngir delloo si nguurug Israël pour ñoom ne nañ foofu yépp seeni maam ñoo ko moom képp koo xam ne mi ngi dox sa digganteeg loolu bu dee góor a reyal buy jigéen reyal buy xale bu ndaw reyal loolu moom lañ bind seen téere loolu tax bay xool ci liy dem foofu nga mën a gis benn militaire israélien fël benn xale bu ndaw jël bal dóor ci bopp bi mu toj suñ la waxoon say-say bu bon boobee di Ariel Sharon te dee jamono yi passé li mu def ca camp Palestine yi ñuy tuddee Chabra ak Shatila camp yoo xam ni gannaaw bi ñu dàqee palestiniens yi seeni dëkk ñu dem làqu ji foofu bari leen fa fekkee lépp loo xam ne mi ngi doon yëngu góor jigéen mag ndaw xale yi làmp ñépp lañ boole rey lan moo waral loolu mooy xol yu dëgër yi nekkoon ci ñoom safaanoog tey li nga xam ne mooy diine lislaam rasul sallallahu alayhi wa sallam nit ñi buñ daan génn guerre daf leen di wax dem leen xeex leen ci yoonu yàlla ak ñiy xeex ak yéen ku ngeen fekk ci toolam muy liggéey bàyyi leen ko fa ku ngeen fekk ci ak juróom muy sàmm bàyyi leen ko ki ngeen fekk ci ab néegam muy jaamu yàlla bàyyi leen ko bu leen rey jigéen bu leen rey xale bu leen taal ay tool lii la jihaatul islam daan tëdde mi ngi noonu amma yahudi suñu borom nee na seen xol yi dafa dëgër la yàlla waxanteeg ñoom ca seen téere yi ñu wëlbati ko jengal ko nu leen neex lañ ko firi daal di fàtte lenn la leen yàlla waare woon ca fàtte boobu ne firiwul fàtte aaya ya yàlla wàcc ci tawraat waaye mooy fàtte jëfe suñu borom mu ni nasullaha fa nasiyahum fàtte nañ yàlla yàlla fàtte leen moo tax ba mbokk julit man ngaa nekk ko wattu alquran wattu ko di ko jàng guddeeg bëccëg et pourtant yaa jiitu ci ñiy fàtte alquran lu waral loolu mbokk alquran bi nga koy jàng ko wattu daf naan la boo demee digganteeg commerce bi nii la noon yi nii la waajur yi nii la mooy yàlla yi nii la kasa kasa nii la yow bu dee yaa ngi koy jàng sa lammiñ ca boo demee ca la muy wax nga fàtte koo jëfe mooy fàtte nga loolu loolu kon la borom bi wax naan fàtte nañ leen lañ leen waaree cay déew yonent yàlla bi xamal ne doo deñ mukk di gis ak warguy ba woo ci ñoom lu dul lu néew ci ñoom cayit ba ko loolu la ñuy dund ba suñu jamono tey borom bi nee na ay yahut bépp loo déggoo ci ñoom ci ak déggoo benn wàll ga danañu weddi ko kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhum loolu tax bu ñu doon wax ci diggante Palestine ak Israël ñaata pacte lañ fi signé du juboo depuis ñoom Carter ca Camp David ba baa ngi yegsi ci ñoom Bush saay saay ba ci seen feuille de route yi ba baa ngi yegsi ci mboolem président yi fi jaar kenn xamul Sharm Sharm el Sheikh kaza wa kaza kenn xamul ñaata pacte la ñuy dem signante bindante ay kayit ne bon léegi jàmm am na waaye balaa 15 jours beneen pacte ci yahud ñëw daal di dindi loolu doo deñ di gis ak wor ci ñoom lu dul lu néew ci ñoom waaye loolu it mu lay jàngal mbokk jullit du wor jullit du wor yàlla bëggul wor kot lépp loo xam ne yaa ngi koy jëflante xatta bu doon tene ab yéeféer la sax war nga bu mu jëkkee jóge ci yow mukk ndax loolee mandarga yahut la mandarga yéeféer la yow yonent bi nag jéggal leen loolu dummóoyu leen te xam ne yàlla dana bëgg jaamam yi nga xam ne nii dañuy rafetal buñ la mën ne nekk sa digganteeg mu sa digganteeg yow luñ ko mën a def it suñu borom yàlla moom lam lay fayee moo gën a màgg ci loolu mi ngi noonu Cheikh Ali.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين barakallahu fiik suñu borom mu ne wa min alladina qaalu inna nasaara ak ca ña nga xam ne it dañ ne ñun day ay nasaraan lañu ay chrétien lañu axadna misaaqahum jàppoon nañ seen kóllëre fa nasu xazan mimma zukiru bi ñoomit ñu fàtte benn cër ca lañ leen waare woon fa aghrayna ñu daal di saxal baynahum ca seen diggante al adaawata wal bagdaa lii di ak noono akok meroo ila yawmi al qiyaama muy noonook mbañante ba baa bi su penc di taxaw wa sawfa yunabbi'uhum allahu bima kaanu yasna'uun yàlla xelsa na leen a xabaare lañ nekkoon di ko jëf yaa ahlal kitaab ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a jot téere bi qad jaakum rasuluna dikkal na leen sunub yonent yubayyinu lakum kasiran mimma kuntum tuxfuuna min alkitaab mu leen di leeralal lu bari ci li ngeen nekkoon di ko nëbb ci téere bi wa yaafu an kasir ñi ngi jéggale it lu bari qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin dikkal na leen jóge ci yàlla ak leer ak téere boo xam ne moom ci boppam téere bu leer la waaye téere bu lay leeralal la yàlla bëgg ci yow lépp mi ngi noonu mbokk suñu boroom gannaaw yahud yu bon yooyee mi ngi wax jëm ci chrétien yi ca ñoom it mooy ñi ne topp nañ yonent yàlla isa inna nasara suñu boroom jëlanteeg ñoom kóllëre gu mel ne gëm jëlanteeg yahud ya ca mooy jaamu leen ma bu leen ma bokkaaleeg dara def la ma leen sant ci jaamu ga ñu fàtte ñoom it la yàlla diggante woon ak ñoom ca téere injil ba ndax sa noppa ça veut dire que ne ñoom dañoo fàtte teg texte ya déedéet mooy jëfe ga lañ bàyyi nangutuñu koo jëfe suñu borom nee na mu saxal seen diggante mi ngi noonu saxal seen diggante noonoo ak mbañeel ba ba àdduna di taxaw ca mbokk léeg la nga dégg ku naan waaw ñun dañoo waroon a mel ni chrétiens yi am benn njiit ca mbokk xamul ñu ni diine lislaam teqalikoo na waaye diiney chrétien ñoo ko gën a teqidikoo fuuf gis nga boo demoon tey ci chrétien yi yow yaa ngi fay fekk li ñuy tuddee les témoins de Jéhovah gis nga témoins de Jéhovah yooyu ñooñu di gàddu sag yi di wër ci biir kër yi ni ñu noonoo ak catholique yi nga xam ne ñoo ëpp ci Sénégal moo raw sax ñoom ni ñu noonee ak l'islam seen jaamu yàlla dara presque bokku ci lu dul bokk gi ñu bokk gëm Isa nga dem ci li ñuy tuddee les protestants ñoom it ñoo gën a garaawat jabaru Ablaye Wade moom ci ñoom la bokk protestant ya ñoom it ñoo gën a noonu ak catholique yi nga dem y a les anglicans y a les mormons y a les nangam ay tarixa yu dul jeex ñoo nekk seen biir boo demoon ci lu yàggul dara ci Occident ay xeex yu garaaw lañ daan xeex ci seen biir kon suñu borom mu ne dugal nañ ci seen biir lii di noonoo ak mbañeel ba ba àdduna di tukki bu ñu demee nag ca seen borom yàlla mu leeralal leen li ñu nekkoon di ko jëf loolu it mbokk mi wone pourquoi noonoo am ci lislaam teqaloo am ci lislaam mooy biñ demee ba julit ñi jëfeetuñu alquran ja yàlla wàcce woon ci ñoom topp ñu texte yi naka yonent bi ak saxaabaam doon defe ca la noonoo gu réy gi dox suñu diggante nga gis ñee ñu naan ay chiite lañu ñee nekk ay ñoo xam ne dañ naan ay xawaarij lañu ak yeneen yoo xam ne tey boo dellu woon xattaa ci biir suñu yi fekk fi ak juuyoo gu rëy rëy rëy ca lan mooy li waral loolu mbokk nit ñi ñàkk tënku ca texte yàlla wàcc ci téere bi yàlla bi ku nekk indi sa texte bopp sa looy bopp nañun waa mbooloo sàngam day lii mooy suñu suñuy loi waaye bu ñëpp yemoon ci tënku ci alquran ak sunna mbokk kon noonoo gi dana doon loo xam ne luy ñàkk la comme na ko suñu borom yàlla waxee borom bi nag daal di ne ay yéen ahlul kitab yéen juif yi ak yéen chrétiens yi noonoo ngeen teqale ngeen seen diine lu bari seen diine jalgati ngeen ko léegi nag yónnee naa leen yonent bu bees boo xam ne moo ñëw di leen leeral lu bari ci yoo xam ne seen maam yi nëbboon nañ ko ca téere ba doonte ne dana jéggale lu bari dikkal na leen jóge ci yàlla leer goo xam ne nii dana leen leeralal la nga xam ne mooy seenug dund ca it téere la boo xam ne benn lënt amu ca ca mbokk lii mooy leerug lislaam alquran suñu borom mu ne bàyyiwu ci dara demal ci ku la neex ci ay boromi xam-xam amul benn question boo koy posé ci wàllu dund lu dul dana la ne nii la ko lislaam gisee contrat sëy la liggéey la nu may jëflante samay wayjur samay dëkkandoo samay employé samay lum mën a doon téeram yàlla bi bàyyiwul dara lu nekk won na la la nga xam ne mooy fa nga war a jaar ba am ca réussite ci àdduna avant réussite ci àllaxira jullit ñi ba ñu demee teg ko seen kanam alxuraan jiite leen di alxuraan yi kese ñoom ñoo notoon àdduna bi jamono joojee kañ lañ dem ba mbir ma wëlbatiku biñ demee ba yàlla nattoo ñu li nga xam ne mooy bokkaale ak bidaa tasaaroo ci biir lislaam te la lislaam wëlbatikoo néew doole yàlla nattoo leen jël yéeféer yi teg seen kaw loolu moom la suñu borom yàlla di wax ci loolu mi nga noonu Cheikh Ali
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير baarakallahu fiik suñu borom mu ne téere bii di alquran yahdi bihi llahu man ittabaa ridwaana yàlla dana ci jubali képp ko topp ngërëmal yàlla subula salaam yoon yoo xam ne yooni jàmmi kese la wa yuxrijuhum min azulumaati ila nuur dana leen ca génnee ci lëndëm ya yóbbu leen ca leerug yàlla ga bi iznihi ci ndigalu yàlla wa yahdihim ila siraatin mustaqim dana leen jubalit ci yoon woo xam ne yoon wu jub lay doon laqad kafara allazina qaalu dëgg day weddina ñi nga xam ne ñoom dañu naan inna allahu huwa almasih ibnu maryam yàlla daal mooy masih doomi maryaama ja qul fa man yamliku min allahi shay'a neel waaw anaku moom ci yàlla ci dara in araada an yuhlika almasih ibnu maryam su bëggoon a alak masih doomi maryaama ja wa ummahu ak sox ak yaayam ja wa man fil ardi jami'an ak ñi nekk ci kaw suuf mboole seen walillahi mulku samawati wal ard ñeel na yàlla ngóorug asamaan yi ak suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante bi yaxluqu ma yasha mooy bind lu ko neex wallahu ala kulli shay'in qadir ca yàlla bépp mbir mooy ka ci am kattan mi ngi noonu mbokk suñu borom nee na alquran ji ca lay jubali ñi topp ngërëmal yàlla ca yoonu jàmm ya mbokk alquran mi ngi nii suñu borom ni inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam alquran muy jubali ca la gën a kawe la gën a complet ci dund goo xam ne dund gu mat la soo demoon ci benn téere bu ñuy tuddee adwaul bayaan adwaul bayaan bu muhammadul amin shinqiti dana bind ci aaya boobu lu jege ñaari téeméeri page ci wax aaya boobu kese muy wane ni kon alquran mooy li lay jubal ci yooni jàmm yow mi bëgg jàmm sa kër ngallaway fexeel ba kër gi ñu tënk ko ci njàngalem lislaam tënk ko ci njàngalem alquran ak sunna suñu demee suñu borom dana la wax ni jigéen ñi day nii lañu war a jëflanteeg seeni borom kër yow borom kër it nii nga war a jëflanteeg sa soxna nii ngeen war a jëflanteeg njaboot gi njaboot gi nii lañu war a sàmm seen awra njaboot gi nii nga war a taxawe ci ñoom di leen sant ñuy julli njaboot gi nii nga leen war a aare dox sa diggante ak ñoom ci lépp loo xam ni da leen di yóbbu sawara qu anfusakum wa ahlikum naara amul kenn kuy jël alquran atte ko sa kër lu dul kër ga nekk kërug jàmm yal na yàlla boole ci suñuy kër waaye fépp foo fekk ak juuyoo am ci kër waatal ne kenn ca waa kër ga safaanoona ak alquran imma muy borom kër ga ci boppam wala muy soxna si ci boppam wala muy ñoom ñépp ci boppam waaye buñ génnee kër ga it mbokk am réew mu mën a doon suñu bëggoon a nekk ci jàmm lañu fexe ba appliquer alquran appliquer ko ci ay njàngleen fexe ba xeex lépp luy shirk ak bokkaale comme na mu amee fële ci Arabie Saoudite doo fa fekk xabru bu ñuy sujuutal la ko raamal doo fa fekk benn waay bu taxaw di wax xar fa foofa naan biig maag yàlla bokk naan attaaya maag yàlla ma defal li defal li amul foofu benn bandkat ñemewul xëy suba rek gurgur des centaines de milliers de ndaw ne leen tëgg leen fecc leen naan leen jaxasoo leen lépp ci barke sëñ diw amul foofu ca loolu mooy la nga xam ne mooy li jiitu gannaaw ba fexe ba taxawal julli ci dëkk ba soo demoon tey dëkk bi la Arabie Saoudite nodd nañ ci jàkka ji automatiquement commerce yëpp dañuy daal di tëj ndax képp koo xam ne gis nañ la ngay jaay heure julli da ngay am pénalité yooyu fay loolee ñu attewoo alquran jàngale alquran jàngal ko njaboot gi amul benn dëkk boo xam ne dana taxaw ci lii lu dul yàlla subhanahu wa taala wàcc jàmm ci dëkk ba wàcc aafiya ci dëkk ba muy yoonu jàmm loolu suñu borom tudd subula salaam muy ay yoon na am islam benn lislaam la waaye nag dafa am yoon bu lay jubal ci sa borom nga jubóog moom am yoon bu mu lay jàngal nooy def ba jubóog say mbokk yoon bu mu lay jàngal nooy def ba jubóog say dëkkandoo yoon bu mu lay def nooy def ba jubóog say mbokk say say njaboot yii yépp ay yoon la yoo xam ne heure boo jàngee l'islam moo xamal ne le nii day la ko l'islam gisee looloo tax muy yoon yu nekk subul salaam borom bi it mu ne téere la boo xam ne ñëw na ngir génne leen ci lëndëm yi mbokk lëndëm bi gën a bon ci lëndëm mooy lëndëm yi bokkaale alquranul karim képp ku ko jàng ca comprendre ko mucc nga ci bokkaale waaye bokk na ci it mbokk lii di lëndëmi ay bidaa alquranul karim moo lay jàngal ci ni diine day mooy nika yonent yàlla bi jàngale nika alquran leerale looloo tax ñu doon jàng démb rek suñu borom ne bis na ki tey matal naa seen diine ji mottali naa ko nii laa ko bëggee gërëm naa ko nii kon képp koo xamee ne ni yaa ngi jàng alxuraan xam ne yàlla mataloon na diine ji xam ne yonent yàlla mot jottali na gën jaare fete jottali bépp façon jaamu yàlla bu ñu créé waat da ngay xam ne lii moom bokku ci ndax bu amoon alxuraan dana ko wax ci alxuraan waxu ko yonent yàlla bi leeralu ko waaye bokk na ci lëndëm yi mu lay génne it mooy lëndëmu ay bànneex mooy li ñuy tudde shahawaat mbokk da ngay gis tey jii ana ñaata nit ñoo xam ne riba yàq na seenu dund ñaata ñoo xam ne riba yàq na seenu dund rawatina ñiy jëflanteeg suñu banque yi mais yow jullit bi gëm ne alxuraan dafa araamal riba ndax da nga bokk ci ñooñu déedéet doo ci bokk ana ñaata nit yu ay tarayaax yàq seen ak dund ana ñaata nit ñu ay soppikatu xaalis yàq seen dund ana ñaata ji nit ay jigéen ñu bon njaalookat yàq seen ak dund mais yow mi nga xam ne nii tey yaa ngi gëm alquran di ko topp da ngay gis ni jigéen du la mën a fitnaal jamais ba ngay dem ci njaaloo ak carte du la yóbbaale jamais sangara du la yóbbaale jamais li nga xam ne mooy riba du la yóbbaale jamais noonoo guy tax ngay reyanteeg ay nit ki ci mbiru àdduna kese du la yóbbaale jamais kon lépp loo xam ne ay lëndëm lu jëm ci bàkkaar ki jàng alxuraan comprendre ko moom mucc na ci loolu yuxrijuhum min azulumat gannaaw ba ila nuur alxuraan bi mu la musalee ci bidaa ya musal la ca bokkaale ya musal la ca bànneex ya maa nga lay nag yóbbu demal julli mu doon lu baax ci sa yaram baax sa esprit jokkale la sa borom alal ji nga yor génn ci zakat mu nga am sa ngërëmal borom am sa ngërëmay ay mbokk am sa ngërëmal ay dëkkandoo mi ngi noonu waajal la nga xam ne mooy yoonu mbaax yoonu aj makka yoonu kaza mooy indil la beneen façon dundin boo xam ne da ngay gis ne lépp jàmm la lépp leer la que ce soit da ngaa riche wala da ngaa pauvre mu safaanoo lool ak yéeféer bi nga xam ne moom amut loolu da ngay gis ne ci ay lëndëm yi xat-xat lay dund looloo tax ba boo demee ci seen dëkk fa alal ji gën a bëri fa la xaru ba ëppi fa la drogue ba ëppi fa la ndof ga ëppi lu waral loolu amuñu leer goo xam ne nii moo leen mën a génn ci seen lëndëm yooyu ñu nekk borom boobu nag subhanahu wa taala ne nii la ciy jubalee it ila siratil mustaqim loolu mu lay won ngan la waay yow jullit heure booy julli fukki yoon ak juróom ñaar au minimum da nga wax yàlla ihdina siratal mustaqim yàlla teg ñu ci yoonu jub yàlla ne la alxuraan ji muy jubale ila siratil mustaqim kon lan mooy sa warugar danaa sol saw dàll fu ma dégg ñuy leeral alxuraan ma dem jàngi ko ngir ma xam siratul mustaqim ndax yaa ngi ñaan yàlla jëbal ma siratul mustaqim na am mi ngi noonu da ngay feebar dem ci médecin bi mu jël kayit bindal la ordonnance ne la lii mooy lay faj luy pexe léegi ordonnance bi ngay dem dem jindi ko jëm koo jëfee loolu nag suñu borom ordonnance bi ñuy bindal mooy alquranul karim da ngeen bëgg a jub siratul mustaqim bi leen yóbbu aljanna na am mooy téere baa ngi nii yahdi bihi yahdihim ila siratil mustaqim ci la yàlla di jubale ila siratil mustaqim suñu borom yàlla bàyyi loolu delluwaat ca chrétien ya gannaaw ba mu ŋàññee yahud ya mu dellu ci chrétien yooyu nga xam ne dañ ne yàlla mooy masih ibnu maryam te loolu xam ngeen ne am na ñu bari ci ñoom loolu lañ gëm mooy le mythe de la trinité mooy yàlla ci boppam moo def boppam nit muy isa am na ñoo xam ne dañ ne yàlla la ak doom ji muy Isa am na ñoo xam ne dañ ne yàlla moo def boppam nit muy Isa ñu ne yàlla muy Isa ibn Maryam naam loolee di wax ju rëy doonte ne bokk ñoom dañ ne yàlla muy Isa ibn Maryam ñun nag ñi ngi dund ak ñoo xam ne dañ ne yàlla muy lépp baa musul leen dégg loolu mi ngi noonu boo déggee loolu xam nga li may wax boo ko déggul neel alhamdulilah ba wax jooju musul ci sa nopp waaye am na ñoo xam ne dañ ne yàlla mooy lépp man yàlla la kii yàlla la dara amul lu dul yàlla yàlla rek fi nekk dara réew fi lu dul yàlla mi ngi noonu loolu mbokk da ngay gis ne chrétiens yi doon wax Isa yàlla la ca ñoom dañoo yëg ne Isa yonent yàlla la ko màgg la ñu dem ba ne ah kii dal mooy yàlla ñoom buñ déggoon sa wax jooju dañuy taf seeni nopp waaye malheureusement jurit ñi ñoom romb nañu leen fa mi ngi noonu bañ naan yàlla la naam am na ñoo xam ne yéggu ci ñu yégguñu ci ñu ne lépp yàlla la waaye da ngay dégg ñu ne la sëñ diw yàlla la ñu noonu sëñ diw yàlla la loolu mbokk ay mbir la yoo xam ne xoolal li ci suñu borom tontu suñu borom mu ne waaw su yàlla ñëwoon bëgg alak Isa bëgg alak ki nga xam ne mooy yaayam bëgg alak waa suuf ana kan moo ci mën dara laakin mënu ci dara mbokk julit la preuve mooy yàlla bind na ne ne kullu shay'in haalikun illa wajha lu mu mën a doon yàlla dana ko mas a alak dana ko mas a rey yonent la malaake la lu mu mën a doon kenn mënu ci dara ñépp dañ ma sa faatu donte ne li ngay gëm yow julit mooy Isa ibn Maryam moom faatoogul yàlla nga koy nelawal ci asamaanam yi dana ko wàcce ci kaw suuf mu ànd ak julit ñi gannaaw ba yàlla faat ko comme nam faate ay maami yonentam ñun ñépp ñu bokk dellu suuf yàlla doog ñoo dekkal heure bu ko soobee kon mbokk yàllaa ngi noonu kenn mënulu ko dara comme nag borom bi nee na man su ma bëggee dara kenn mënu ci dara ay waay yow borom xel te ngaa doyloo yàlla moomu te sa ragal yépp yem ci yàlla moomu te sa yaakaar yépp yem ci yàlla moomu te xam ne ilayhi yurja lu amru kullu lépp ci moom rek lay dellu jàll wa ala borom boobu nag subhanahu wa taala daa di ne nañu xam ne yàlla moom nguurug asamaan ak suuf te mooy bind lu ko neex ndax chrétien yooyu la leen yóbbu woon bañ ne Isa yàlla la am ñeneen ñu ne doomi yàlla la dañoo gis Maryaama da koo ëmb ci amul baay ñii màggal ko ba ne doomi yàlla la ñii màggal ko ba far ne yàlla la suñu borom ne déedéet man may bind lu ma neex ca ki gën a yéeme Isa ibn Maryam mooy baayam aadama alayhi salaam maamam bi nga xam ne ca la jógee ñun ñu ñu jóge ca mooy Isa sax am na yaay waaye aadama moom amul baay amul yaay yàlla bind ko moo tax yàlla mu ne yaxluqu ma yasha mooy bind lu ko neex ca moo am kàttan ci lépp loolu it muy wone ne yow benn mbindaafanu yàlla nga yow sa wàllu bopp nga war a sant ci yàlla mi li bind ca matal sa bind waaye nga xam ne it lépp lu jóge ci yow yàlla ko bind njaboot gi yàlla ko moom moo tax suñu borom ne yaxluqu ma yasha daa dina it yahabu liman yashaau inasan wa yahabu liman yashaau zukur aw yuzawijuhum zukranan wa inasa samay jaame ngi nii maa leen di xool ku ma neex ci ñoom ma jagleel ko doom yi góor ku ma neex ci ñoom ma jagleel ko doom yi jigéen wala ma jaxaseel ko góor ak jigéen lii la yàlla subhanahu wa taala di wax di di def léegi nag gannaaw yàlla ndax am na kenn kuy bind déedéet yàlla nee na mboolem mbindaa fën yépp buñ daje woon ngir bëgg a bind benn weñ benn weñ buy naaw rek loolee da ngay gis amuñu kattan ci bind ko bal benn mbindaa fën bu dee woon benn mbott tey deene fii ñu dajale tous les scientifiques du monde pour bëgg koo dekkalaat rek mënuñu ko dekkal waxumaa nag di bind lu mën a doon loolu kon mbokk mu lay jàngal ne lépp lu nekk ci kaw asamaan ak suuf ay mbindaafanu yàlla lañu ay jaami yàlla lañu benn buur moo fi nekk muy yàlla looloo tax ba jullit du yaakaar ku dul yàlla day ànd ak jaami yàlla yi jaamu yàlla borom boobu nag wan ñu ne lépp moo ko man loo yaakaar yaakaar ko ci moom mën na ko looy ragal mën na la ko fegal mën na ko ndax mooy ki nga xam ne dara tëwu ko yal nañu jagleel jàmmi àdduna ak jàmmi alaxira te defal ñu àjjana muy suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain moom dafa am ñaar ñoo xam ne dañoo nekkoon ci julli kenn ki daal di tissooli ne alhamdulillah am kum sësal ne ko yarhamukallah loolu de li ñuy wax mooy def nañu loo xam ne wuruñu ko woon a def donte ne nekkul loo xam ne day yàqu seen julli loole mas na dal kenn ci sahaaba ya di Muawiya asulami boobu xamul woon ne kuy julli du wax muy julli ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tissooli daa di ne alhamdulillah ñenn ñi mu sosaloon di ko xool mu ne waaw lu ngeen may xoole yaa ngi dégg dégg nga gaa yi commencé di ko tapp tapp ñu julli ba pare te la ko yonent bi alayhi salaam doog a woo na ko déet julli gi nañu xam ne yàlla da cee araamal wax ca depuis début l'islam loolu mënoon a nekk la te mooy daanañu wax bu ko defee ki nga xam ne day julli tissooli bu dee aji xam la bu mu wax alhamdulillah kenn du ko wax yarhamukallah amma bu dee dafa xamul nag wax alhamdulillah kooku yàqul julleem ki naka yarhamukallah it loolu yàqul julleem waaye la ñu waroon a def mooy waruñu ko woon a wax wallahu subhanahu wa taala alam naam wala micro bi waaw waaw bismillah jullee seen papa ah waaw ñu waaw waala kulli xaal ay jigéen lañu bi ñuy jullee seen yaay dañu bëggoon dem bokk ca mboolem jullee ma waaw yonent bi alayhi salaam day la soxna si di Ummu Atiya wax nee na yonent bi dañu doon tere ñuy topp ay néew waaye doguwu ca woon doguwu ca woon looloo tax ba dañu naan topp ay néew di ko jullee loole moom nekkul lu ñu sopp ci jigéen su ko defee nag dara néewu ca allahuma lu dul yenn néew yi nga xam ne ay dañoo am kilifteef ci lislaam gis nañu rawatina jigéen ñi nga xam ne dañoo am ay dayo ci lislaam ki nga xam ne moom la ñuy tuddee suñu jàkka ji di Saad ibn Abi Waqas bi mu faatoo yaay Aïcha dane nañ ko indiwaay ci côté jàkka ji fi soxna yonent bi nekk ngir ñu ñaanal ko loolu kon dañuy gis ne jigéen bu ci tombee fekk ñuy jullee néew mën na taxaw bokk ci jullee ga mais daal di dabu ji comme góor ña dem pour fekkee ji ko loolee moom islam teggal na ko ko ñaan rek mooy julli néew fu mu mën a nekk ñaan fa yàlla dana nangu ak ñaanam comme rob gañ koy rob ca armeel ya la chaque ne dañ koy ñaanal yow it heure boo yégee ne su mbokk jullit robi nañ ko na nga ko ñaanal ci la gën la nga koy ñaanal mooy yàlla yàlla na nga ko jéggal yàlla yàlla na nga saxal tontam loolu mooy la gën li ngay ñaanal sa mbokk boo yëg ne ña ngi koy suuli mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah dama julli fajar ba gee gannaaw ba nag laa yëg ne man kat sama tubéy bii ma jullee dafa doon tubéy bu am solo tubéy bu am sobe loolu day mboolem yi boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne julli ya nga xamee ne moom dafa paase woon nga xam ne jullee nga ko ci dafa moon sobe loole moom julli yooyu baax na am na nag ñoo xam ne dañ ne bu dee waxtu wi génnagul te loolu mooy mazhab Malik masalan waxtu gee baa ngi nii léegi rombagul yow julli nga ba pare gis nga dafa am sobe su boobaa ngëneel la nga julli waat ci biir waxtu wi waaye bépp waxtu woo xam ne julli nga ko ak sobe ba waxtu wa paase loole da ngay gis ne jarul ñu koy doon di ko baamuwaat mi ngi noonu donte ne ne bokk na it li ñu ci jàpp lu ci gën a dëgër mooy julli nga ba pare doog a xam sobe bi loolee julli nga baax na rasul sallallahu alayhi wa sallam jiite na saxaaba yi di julli ba ci biir julli gi mu summi ay dàllam saxaaba yi toppoon ci gannaawam summi seeni dàll bi mu sëlmalee mu ne waaw lu tax ngeen summi seen dàll ñu ne dañoo gis nga summi see dàll mu ne déedéet jibril def ma dikkal na ma dàll yi nga sol daa am sobe moo tax ma ma ma summi ko mais yonent bi sëlmalul commencé waat dafa continuer julleem loolu it muy wane ne boo doon julli ba def ñaari rakka sa xel ne yarra sa tubé bi dafa am sobe nga mën koo summi ca sa awra du génn boo jullee la ca desit julli nga doon na lu baax loolu daal kon loolu la ñuy wax amma nag boo bañee xilaaf bu waxtu wi paasewul li gën mooy nga baamu ko rek ngir borom xam-xam yi jàpp ne bu waxtu wi paasewul baamu ko mooy la gën wallahu subhanahu wa taala aalam naam
Mohamed Sarr. mu ngi lay xaar nee na ak benn xaritam.
incha allah waaw incha allah waaw kon mbokk yi yaakaar naa ma ne suñu doyloo loolu di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla defal ñu tawfiq fi dunia wal axira yàlla yombalal ñu koor gi ñu yeggale ko ci jàmm xam naa di fàttali rek ne altine ci guddi ci la ñuy commencé qiyaamu leyli yi yal na yàlla yombal ko ci barkeel ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain